Ndiob Afia e moom nag mu mu mu def benn sortie démb ci entretien ba mu amoon ak nenet nanet bi ñëpp gëjoon gis aussi mu nekkoon foofee ca DTV mu rejoindre fi nga xam ne. nanet Diop voilà nanet Diop euh, rejoindre fi nga xam ne moom mooy. Euh, Euh, fi nga xam ne moom mooy SSP moom Ndiogou Afia nag euh, mer lool ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy euh, refus visa bi nga xam ne waa ambassade bu France ñoom ñoo ko ko bañal ci tukki boobee nga xam ne moom la waroon am foofu ca France ci sant Serigne Fallou Fall bi nga xam ne moom la waroon def foofu la France ñu rejetel ko boobu la visa moom nag la muy mer ci loolu mooy que ni ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox visa muy nitu àdduna yi nga xam ne d'habitude ñoom la ñuy jox mm-hmm. comédiens yeeg fecckat yeeg ñooñu noonu gënuñ leen également euh, dem dem bi muy dem euh, foofee nga xam ne moom mooy euh, ca ca ca ca ca bitim réew. Mhm. demu fa pour toog dafa dem rek pour liggéey ñëwaat di koo xamante ne day ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moom la waa ambassadeur France def parce que moom nee na amul benn yoon intérêt dem France toog fa. comme pour dire que. Euh, mhm. mbir mi day ñëwaat di ñëwaat ci ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jox visa te bu ñu demee ñaani visa daf leen di jafe lool moom euh, Ndiogou Afia e, mu ñëwaat ci boobu la mbir bi nga xam ne moom lay ñaawlu ci entretien boobee nga xam ne moom la amoon ak Nanette Diop foofee ca SSP. Cheikh Niang euh, di guitariste Wally. Cheikh Niang ou Cheikh Niang Cheikh Niang Cheikh Niang voilà. Mhm. Cheikh Niane di malien di guitariste Wally Ballago Seck bi nga xam ne gis nañu relation bi mu am ak Wally Seck depuis ba mu demee woon fi nga xam ne rek moom Wally moom mooy euh, ca diwaanu Mali ci featuring bi mu doon am ak Sidiki Diabaté ba mu am fa relation yu am solo ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Niane Cheikh nag moom mu ñëwaat ak ñun ci benn euh, produit bu bees ak euh, tuddee ko papa mama donc euh, mu mel ni rek euh, ay doomam ñoom ñoo ko ci woyal doon ko ci rendre hommage bu baax a baax ak seen yaay muy quand même vidéo bi nga xam ne génn na démb donc vidéo bu jaar yoon ki ko réalisé di Zizar alors kii di euh, Rema joob tamit euh, doomu Tëngéej bi moom mm. dafa génne single bu bees. bu jeexee jeex na muy euh, benn titre bi nga xam ne moom la duppee woyam boobee nga xam ne mm-hmm. def na ko moom Rema Diop nag ñëpp ràññeeku ci Sénégal ci baatam bu neex waaye woyu neex yi nga xam ne vraiment mu ngi koy def di koo xamante ne vraiment doomu Tëngéej la mais aussi elle a su s'imposer quand ba am mm-hmm. place bu am solo ci li nga xam ne moom mooy musique sénégalaise bi moom mu ñëwaat ñun moom également. ak vidéo bu bees tuddee ko bu jeexee jeex na moom également Zizar moom moo tourné boobu la clip parce que xam nga rek Zizar ak waa Rob Team mm-hmm. c'est une longue histoire quand même moom moo def clip bu ñaan bi mais moom moo defaat aussi mm-hmm. euh, son vraiment bi nga xam ne mi ngi wax ak noon yi nga xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. buñ jàkkaarloo ak yow di la siiñ boo wanee ginnaaw rek ñu lay ree muy euh, boo wanee kanam également ñu lay ree muy euh, li nga xam ne moom mooy son bu neex bi nga xam ne vraiment sénégalais yi approuvé nañ ko di ko félicité bu baax a baax moom Rema Diop Euh, Zizaar moom gis nañ ne artistes yi doog a fële yu ci bëri moom leen mooy def ay ñoom Jeyla ñoom Jeyla à ah, ses débuts euh, moom mooy def vidéo yi quand même mais ñooy liggéeyandoo gis nañu aussi Serifou ak Jof Sabrin mm-hmm. pratiquement seen vidéo yëpp moom Zizaar moo ko produire te ñoom également ñoom ñooy jàppale vraiment ci ay vidéo yu bëri xale bu neex baatuwaay waaw non def nañ benn entretien sax sur enquête man ak moom donc euh, ci laa ko njëkk a découvrir vraiment ku am talent la jeune la bu am talent. Mm-hmm. Euh, te am carrière. waaw ah, te boo ko carrière internationale aussi. voilà te am na bare bare yu yu mu effectué woon. et puis elle man dernière vidéo bi ma gis. c' est 6 millions de vues. voilà ci benn jeune boo xam ne amul amul 10 ans ci espagnol lii ëpp importance rek mooy. dafa fexe aussi ba indi style boppam aussi. très bien rasta yi aussi fexe ba moom couleur musicale yi nga xam ne da koy dugal ci ay musique am. Mm-hmm. Euh, day recherché rek day booleel. la mu am boole di ak recherche yi muy def boole ko. moo tax ay musique am day riche trop en couleur. c'est-à-dire elle est à la fois plus des fois tamit côté traditionnel dugal. voilà elle mm-hmm. regroupe beaucoup de talent. ci ci boole te aussi tamit gars dañ koy soxla aussi sa voix parce que. Mm-hmm. Euh, daaw album yi Mouhamed Niang defoon ci màggal yi. Mhm. pratiquement moom moo def son yëpp ba nga xam ne. am na benn moom vraiment am na benn son. moo def kër waaw moo def kër yi. am na benn son Mouhamed Niang bi muy naan euh, melu woon ñu meluñu woon nii la tey jii maa rafet son mhm. boobu moom moo ko moom moo ko këroon tey son bi même ba avant moo génn moo Mouhamed Niang dafa defoon benn poste nit ñi naan xale bi kan la xale bi kan la. Mhm. te son bi ba mu génnee nit ñi gis nañ lim ci def te aussi son bi mujjee génnaat aussi ci màggal bi. bi Mouhamed Niang defaat moom moo defaat voix bi mu jaar fa mu doon jaar comme pour dire que vraiment daal. vraiment ñu lay woo sur enquête. voilà artiste la te xam naa ne euh, Moussa yaay dem seetiwaat ko. Ah, <laughs> non non parce que. elle n'a pas de benn entretien foofu ci suñu people ak DJ Yves. defoon naag moom benn benn entretien ne comme am na benn kii bu mu génneewaat. Euh, bu jeexee jeex na waaw faaw aussi ñu ñu ñu wax ci quand voilà vidéo bi mi ngi nii. yi ay ay ay ay photo la yoo xamante ne aussi mu ngi tukkee ci vidéo boobee nga xam ne def na ko te Zizar moo ko moo ko réaliser ok euh, kan Diallo moom gëj nañ ko dégg mais dafa mel ni kiiwaat na. voilà ñëwaat na ñëwaat na ci woyu bi mu mhm. intitulé kay sëyal sëyal moom mu ànd ci ki nga xam ne moom mooy Xaadim Temps di son boo xamante ne son bu neex la bu nice aussi avec une très réalisation. Euh, de clip euh, par euh, mbay Diop mi nga xam ne actuellement moom tamit mi ngi def ay vidéo yu nice vraiment xam nga Sénégal. Mhm. wéykat yi dañu mën lool mais réalisateurs yi ñu ngi fi quand def ay. liggéey yu am solo nga xam ne ñu ngi koy def moom Mbaye Diop moom moo. réalisé vidéo Mirma yi nga xam ne ñu moom mujjee génn mhm. donc dal si ci dernier clip xaalim temps bi ba ñëw réalisé clip bu ci clip bi nag moom Kandialo mi ngi voilà mel ni kuy demandé en mariage ki nga xam ne moo ne ci clip bi di Xadi Euh, bi nga xam ne moom moo nekk ci série euh, polygame bu waa Thiès doon def xale bu rafet bi rek donc moom la bokkal ci clip bi doon ko doon demander en mariage quand même kay sëyal ma ku ko gisee xam ne ku bëgg la rek euh, ki nga nekkal pour mu ñëw voilà sëyal la mu yee mhm. son bu neex vraiment doon euh, li nit ñi di bàyyi xel actuellement loolu ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi di leen euh, félicité bu baax a baax ndax baaxoon na quand même ñu ñëw aussi ak ñoom ci liggéey bu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def euh, ci li nga xam ne moom mooy seen monde bi nga xam ne moom la ñuy nekk muy musique Kane Diallo moom tamit Kane Diallo waaw ku am avenir si musique bi non tout à dafa wax ne y a une assure au niveau mm-hmm. mm-hmm. c'est vrai parce que kenn ku ci nekk am nga sa touche bopp mm-hmm. moom dafa ñëw te gis ba pare musique bi muy def yàqalu ko dara ci liggéeyam de réalisateur la à la 2STV donc euh, yàqalu ko dara ci liggéeyam di doomu di doomu Masuña Masuña mi nga mm. xam ne ku ne xamoon na digganteem. ak Baaba Maal mm. ba Baaba Maal sax euh, tuddee nañ ko ci doom. muy ki nga xam ne moom mooy Baaba mm. Maal mooy rakku ra kan Kandiaal boobu di imiter rek artiste yi. waaw waaw waaw rek loolu voilà. Euh, muy rakk moom la ñu tuddee Baaba Maal voilà c'était tout pour aujourd'hui ci seen actu people bu tey.